loolu nettali naa ko lu bare bare bare bare yàlla dimbali na ma dañuy wax naan sawe d'habitude kuy parti politique da ngay mer gàddu waaye xanaa Sénégal mar nañ ma seede ne ma man meruma gàddu ko xam nga lu may bañ la ñuy dëkkal ñëpp ñu dem ba généraliser ko ba nga xam ne ku jóg rek ñu wax ko kooku ngay wax mooy Idrissa Seck ma koy rendre hommage ak ñamu àndal nekk naa ak ñoom nekk bu rafet ba ma fa nekkee traité nañ ma traité bu rafet ba ma fay jóge ma rajo demuma télé këram laa dem toog ak moom këram face to face mu may xool ma koy xool ñu waxtaan ci waxtaan bu rafet waxtaan bu jekk mu ñaanal ma ma dem man maa décidé ne bàyyi naa politique bu parti réew mi man maa décidé en toute responsabilité ne ànduma ak Idriss àndatuma ak moom boobu dara xewul crise amul dara amul man ma évalué sama vie man jàpp ne foofu def naa fa la ma waroon a def te kuy waxal yàlla xam ne def naa fa la ma waroon a def raar na nga gis bu nekk ci parti politique boo xam ne bu ñuy wàññi lu mu bon bon buñ doon wañ juróomi nit ñu ñu xam ci biir parti réew mi xanaa bokk dinaa bokk ci juróom ñi responsable bu toy noonu ci parti mosoo dem élection présidentielle parce que jàpp nga ne ki kay dem moo ko mérité waxuma nekk député mosuma nekk ci liste élection élection législative waxuma dëgg ci liste bu ñu fal ma mosuma nekk man Abdourahmane ci élection législative mais loolu la ñëpp wër donc man nekkuma woon ci politique pour wut lu ma bopp gis nga dama leen di wax ne je ne suis pas un privilégié de la république loolu moom bind leen ko li ma am ci république bi te dinaa ko ko delloo mooy fa ma jaar am ay parents yoo xam ne amuñu doole école publique di ma tàggat di ma tàggat ba ma toog fii tey man wax ak yéen loolu Sénégal moo ko def ci man bu soobee yàlla dinaa leen ko delloo parti boobu te xam naa ne am na tey ñu fi nekk aw ñoom benn xaar ma yàlla waaye nag histoire moo changé tey dañuy bind histoire bu bees dañuy bind histoire leneen lu bees ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñoo koy bind tey ñun ñoo xew suñu génération ñoo xew suñu génération ñun ñooy indi lu bees mais nañ ñu may ñu wax suñu bopp mënuñu nekk tout le temps di wax ci keneen ak keneen ak keneen tey jël nañ suñu responsabilité ñañu daan waxal nañu am générosité may ñu ñun ñu waxal suñu bopp ñu déglu ñu ba xam lan la sénégalais di décider jërëjëf merci beaucoup.